mbokki Safar 7 TV maa ngi bëgg ñëw bis bu di ñëw gën seen foto tak technique na fa si journée tey dañ koy commencé force Arabie Saoudite léegi officiel na Neymar Junior jóge na Paris Saint-Germain signé ak Al Hilal transfert mi ngi leen na dikkee loo pour cent laal salaire bu toll si 300 millions d'euros si ñaari at nga xam ne nag moom lañ ko fa proposé kon dañ koy séddale salaire bi si ñaari at

gardien CCU bi di Yacine Bouna fumtali naka waxtaan ba déggoo ak Al Hilal ngir naka dem signé foofu te waxtaan ba déggoo am na si diggante na it ñaari club yi muy FC Séville ak Al Hilal pour transfert doomu Maroc bi foofu sa Arabie Saoudite Al Ahly signé nañu kii di Demiral nekk défenseur si club bi di Atalanta Bergame transfert mi ngi leen a dikkee 20 millions d'euros kii di euh, Demiral dina la salaire bu toll si 13 euh, millions d'euros at bu nekk signé na fa contrat wu ñetti at Philippe Coutinho bokk na si euh, joueur yi nga xam ne waa Arabie Saoudite ñu ngi leen di ciblé kon nag club bi di Al Ittifaq nekk club bu Steven Gerrard ñoo koy ciblé te bëgg nañ koo signé doomu Égypte bi Mohamed Tassa la club bi di Liverpool kon nag jox na ndigal Liverpool ngir nag ñu négocier club bi di Al Ittihad ne nag da koo bëgg a signé kon nag kii di uh, Mohamed Tassa la jamono toll nii buntu yi ngir dama signé foofu sa Arabie Saoudite beneen ne nag uh, ñu ngi koy ciblé foofu sa Arabie Saoudite mooy uh, gardien Liverpool bi di Alisson Becker club bi di Al ñoo ko bëgg a signé te fu mu toll nii nag beneen jour mu ne signé foofu sa Al Nassr mooy Clément Lenglet bu FC Barcelone kon na jamono tolli nag jege na toog dem signé ak club bi di Al foofu sa Arabie Saoudite Al dañoo proposé seen jour bi di Talisca si club bi di FC Barcelone ngir naka remplacer Ousmane Dembélé bi nga naka dem na signé foofu sa Paris Saint-Germain kon na dañ ko bëgg a boolewal si dossier Clément Lenglet bi ngir naka moo gën a yomb Forza Espagne la ñuy jàll FC Barcelona Neymar bi nga xam ne nag signé club bi daal di laal Forza Arabie Saoudite ba 2025 moom nag ba léegi xelam mu ngi si FC Barcelona te bëgg na faa dellu si waat kon euh, na nag dellu si club bi di FC Barcelona signé fa libre signé fa librement kon ren ji la fa bëggoon signé waaye nag euh, FC Barcelona pour ñu signé woon ko day xaw a jafe moo tax nag dafa dem signé foofu sa FC Barcelone la ñuy def léegi Xavi Hernandez di entraîneur Barça moom nag joxe na accord am ngir nag ñu jaay Ansu Fati kon xamal na ko ne nag bokkul si joueur yi nga ne boole na leen si plan fu mu toll nag Arsenal Liverpool ak Manchester United jot nañu laajte ay renseignements si euh, kii di Ansu Fati si club bi di Real Madrid la ñuy ñëw officiel na Kepa Arrizabalaga abale nañ ko si club bi di Real Madrid mu jóge Malick Thiaw nekk défenseur si club bi di Milan AC agent moo ko proposé foofu sa Real Madrid ngir nag remplacer Eder Militão waaye Real nag seen na ko te ñoom dañoo xam leen nag pare wuñ pour signer beneen défenseur. Chelsea la jàll foofu sa Angleterre mooy Moisés Caicedo léegi officiel na jóge na Brighton signé Chelsea transfert mi ngi leen kon na mooy joueur bi nga xam ne nag moo gën a cher si histoire championnat Angleterre ba léegi foofu sa Chelsea di Romeo Lavia bi nga xam ne nag Liverpool moo nekkoon na si yóbbu si moom nag Chelsea la mujjee tànn te lépp mën na kon nag dina si ñàkk Chelsea fu mu toll nii nag ñu ngi waxtaan si ya dernier détail ngeen nag sansonto nag Chelsea moo tax la transfert mu gën gaawee waxtaan ba déggu am na si diggante Crystal Palace ak Chelsea pour transfert Michael Olise kon nag kii di Michel Olise waa Chelsea nañ fay ya clause foofu sa Angleterre la des ba léegi Manchester United jege nañu Everton ngir naka jéem waxtaan si kii di Amadou Onana kon nag ñi di Everton ñu laaj cinquante millions ngir naka bàyyi seen milieu terrain bi ba léegi ak Manchester United Benjamin Pavard tànn na ne si club bi di Manchester United la bëgg a football xamal na ko waa Bayern Munich fu mu toll nii Manchester United ñu ngi si waxtaan ak Bayern waaye naka dañoo bëgg bàyyi ba Harry Bernardo Silva déggoon ak Manchester City ngir naka prolonger contrat ba 2027 keneen kuy waaj a foofu sax Manchester City muy euh, Kyle Walker kon na moom dina signé wax la prolongation euh, jour yi di ñëw officiel na kii di euh, Rico Lewis signé na offre de City ba 2028 atu contrat la signé officiel na kii di David Raya jóge na ci club bi di Brentford ñu abale ko ci club bi di Arsenal César Kassé wàccel ci abale nañ ko foofu léegi officiel na Nicolò Zaniolo dina signé ak club bi di Aston Villa transfert bi dina dikkee Aston Villa 27 millions d'euros dinañ ko jëlee Galatasaray kon na tey jii ne la war a def visite médicale am ngir la signature am na West Ham signé nañu James Ward-Prowse jëlee ko ci club bi di Southampton transfert mu ngi leen dédiqué Brighton gannaaw naka bi nga xam ne joxe nañ seen joueur bi di Caicedo foofu sa Chelsea bëgg nañoo signé kii di Tyler Adams bu Leeds United ak kii di Mohamed Kudus bu Ajax kon fu mu toll ñu ngi waxtaan ak ñoom beneen joueur bi nga ne nag Brighton bëgg na ko muy Carlos Baleba nekk si club bi di Lille kon nag def nañu offre bu njëkk toll si 17 millions d'euros ak 3 millions d'euros bonus waaye nag waaye kii di Bale ba fu mu toll nii nag Liverpool ñoo dugg si dossier bi ngeen nag jéem ko di ko xëccoo ak Brighton France la jàll waa Lyon duggaat nañ si dossier milieu terrain a signé mercato janvier bi ñu bàyyi seen joueur bi dem. officiel na Denis Zakaria jóge na Juventus de Turin signé ak Monaco transfert mu leen dikkee 20 millions d'euros. na Rome dem a signé ak ba Paris Saint-Germain ñu ngi intéressé aussi kii di Ibrahima Sangaré bu PSV àndoon te ñu ngi siy waxtaan waaye du euh, Paris kese dem signé foofu sa championnat Qatar ak club yi di euh, Arabi SC Paris saint ñu ngi laaj millions d'euros pour bàyyi seen nageur bi di euh, Hugo Ekitike dem Milan AC Francfort ak Everton ñoo intéressé yo dossier bi fu mu toll nii nag direction Paris Saint-Germain gannaaw bu ñu dugalee Kylian Mbappé bi dugalaat nañ ko nag si équipe A bi te pare match yi di ñëw waaye nag ba léegi ñu ngi continuer di négocier ak moom pour na prolonger contrat waaye Kylian Mbappé nag fu mu toll nii prolongation contrat nekkagul si xel bi yaakaar baax ne dina ñëw prolonger contrat am comme ni mu ko defoon si atum 2022 prolonger ba 2025. Leandro Paredes ak Renato Sanchez jóge nañu Paris saint dem foofu sa Rome ngir nag matal seen signature def nañ seen visite médicale dinañu signé seen contrat ak club italien bi ki di Paredes dañ koy jaay foofu lu toll ak 4 millions d'euros Renato Sanchez moom dañ koy yebale foofu ak option d'achat bu toll si 15 millions d'euros ba léegi foofu sa Italie la jàll Marc Arnautovic jóge na Bologne signé ak club bi di Inter de Milan Dan kii di Roberto Mancini bi nga xam ne tekki na ndombal tànkam si yaban équipe nationale bu Italie moom nag dina signé ak club bi di Arabie Saoudite lu yàggul la dara kon nag dina doon seen entraîneur dina fayoo salaire bu toll si 40 millions d'euros si ñàkk contrat ba 2026 foofu championnat turquie la ñu kii di Chamberlain jóge na Liverpool signé ak Besiktas Sergio Ramos yam fi mu dal nekk muy waxtaan ak club bi di Galatasaray foofu sa moo signé ak ñoom gannaaw nag bi nga xam ne mënatu ñoom kii di Yassine Bounou ak Kepa Arrizabalaga ñu ngi bëgg signé nag kii di David De Gea tey jii nii si la am Super Coupe Europe bu war dox si diggante Manchester City bu jël la Ligue des Champions ak SSU bi nga xam ne nag moo jëloon Europa League final bi 19h lañ commencé ñu ñëw si euh, championnat Sénégal Ligue kii di euh, Souleymane Diallo bi nga euh, bi di Guédiawaye ñu jeexal ak euh, Melo Ndiaye bi nga xam ne nag jóge na jaraaf dem ma signé foofu sa championnat Maroc si club bi di Atlético Youssoufa Berchid kon nag ki di euh, Melo Ndiaye jóge na jaraaf dem ma signé foofu sa Maroc foofu la ñu yemale xibaar yi di leen jox dig daje beneen yoon xibaar di leen ñaan ngeen amee activer notification pour jot information yi.